wax yooyu lu ma lu ma lu ma lu ma lu ma def def lu ma lu ma jublu si moom. doo fàtte. su ma su ma reetaanee sax kott ko wax boobu dafay dafay dafay des sama xol. dafay fàtte. wax wax yu ñuul yu ñaaw yi dafay def sama xol. <laughs> dem naa ba nekk mag. waaye wax bu bon rek laay dégg si samay waajur. ani moom mu ngi dund. waaw ñoom ñoom sama papa mu ngi dund sama yaay mu ngi dund. mais sama yaay mënul jëkkati wax bu baax. mu ne mu ne mu ne sama doom la jublu ko si man ba su nekk rek mu may utalee histoire pour pour pour tegal ma ko. ba at yi nga toll ba at yi nga toll sax bàyyiwul. ba at yi ma toll bàyyiwul. kii kañ lay bàyyi. ba nii ma ne xaaral bi man il faut ma dem wax ak psychologue parce que nii mënul mënul nekk. <laughs> ma dem wax ak psychologue psychologue ne ma pour nga mun a pour nga mun a màgg. il faut que génn si si entourage familial mais lolu naka suñu suñu suñu suñu suñu suñu daf ñu ne daf ñu né mëno mëno bayyi sa yaay mëno bayyi sa papa. Julit nga. Wa day del rek di jug guddi di di di porter plainte ci Yalla. waaw. del def ñaari rak guddi dégg nga. def def mais li bëgg wax rek que Euh, yenn saa yi parents yi dinañ yaakaar ne parents lañu ci lépp mais duñu parents ci lépp. ay géniteurs rek la doon. waaw ay géniteurs la sa doom. di ko tette ba ba muy dem ci muy dee di ko tette parce que noonu loolu mooy yaay. waaw ma ne. alaaji kii li muy dund dafa métti allo. waaw waaw maa ngi dégg. bu mu la naqari xam tax. munu ñàkk bu naqari may ma ñëw may ma ñëw rek. sama sama rongoñ yaa ngi wadd parce que. Ah ma dama ni. waa déglul sa papa. allo. dama ne bu mu la naqari xam nga lu tax. Mm-hmm. ab déeg bu fuddoo jëm ci géej daa ñibbi. expliqué ko. xamul waral loolu. Mm-hmm. moom mi la jur moom mi jur moom mi la jur. Mm-hmm. nga am fukki ak ñett képp mu xool la ba am lu mu wax ci yow. fukki at ak benn. fukki at ak benn mu am lu mu wax ci yow. mu ne ko jigéenu guddi ngay doon. na jéem a wisitaat boppam. xool boppam. ndax damaa bëgg waxtu wax ni ne lu jóge ci biir. su amee sikk te màggagul fa mu jóge nañ ko seetaat ba xam la fa xewoon. Hmm. ca meer ba. ca meer ba déglu baax li ma lay wax. ca meer ba de dara amoo amoo defo. dama la ni <laughs> amoo defo defo baa nga ca tegale bu dëngee la jiitu la. Mhm. waaye su jubee lu jóge ci kawam dina mën a sell. Mhm. dégg nga baax li ma lay wax. na siggi dox amul benn. da ngay siggi dox. ginnaaw yàlla dogal na ba mu la ko fukki at ak benn ngam te yaa ngi ci 40 ans yu tegal te boobaag léegi saw doxin rafet na te gisoo dara loo xam ne dégg mën na la cee mën a indil wax bu ñaaw boo tuma la naqari da olof dafa wax ni baat dina jóg mu ñaaw lool waaye balaa jóg bu ko borom sàmmee dina xam fa mu jóge fa la dëkk waaye jëmul fa mu dëkk mooy wax boobu jeex na demandé wu wax wax boobu dafa am sens. ndeysaan. bi dafa am sens mooy que ne doo doo jur rek ne sama doom rek moo war a am am moo ma war a amal àq. Mhm. doom euh, euh, euh, amal na àq doom. bu baax parce que di di jóg di di jóg di daanu ne ñoom. Mm. maa ngi fii di sëy. Mm. di di di di jóg di daanu di leen defaral di jóg di daanu di leen di leen di leen di leen di leen tete di leen déglu di leen dimbale. Mm. te te te doo ci am wax bu neex neexu mm-hmm. loo am séddoo koog ñoom loo xam wax leen. waaye suñu tournée rek tegal la benn bu métti. waaye bu maa ngi yor ay ay frères yoo xamante ne kenn leen laal. bu mu leen bu mu la bu ma bu mu la naqadeeti. kenn du leen laal ñi nga xamante ne maa bokk ak ñoom ndey ak baay kenn du leen laal. man rek man rek la ñu gis ci famille bi. daal di ne man maa bon. bu mu la naqadeeti dégg nga bu mu la naqadeeti. en tout cas merci beaucoup. dundal dundal dundal nga toppatoo say dom bu ak sa borom keur deg. aw ma mo ah, yalla baax na waxati bul waxati am nga njabot. <laughs> am bul waxati bu que la ambassadeur bul waxati c'est juste un petit point Uh-huh. man daal su ma la xoolee ci télé bi sax sama rongoñ yi day jeex. <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. <laughs> su ma la xoolee rek kontaan léegi man yow yaay sama yaay. waaw waaw d'accord naa maa la jur nàmpal la. <laughs> jël naa sama sama sama yëpp ma jox la ko parce que yow yaay sama yaay léegi. bul quitté bul quitté Lansana jox la sama numéro bul quitté dégg nga. ay eh waay taa dégg la woo jox la sama numéro dégg nga. Mouhamed waxtu wi dab nañu.

ndax nee na yaay ñoom ñoom bañ nañ ko ba nga xam ne dañuy dajaloo ñoom di réunion ci seen biir. Hmm. ndax ñàkk ñàkk nawloo gi nga xam ne ñàkk nañ ko nawloo seen wuy jur jigéen ndax definam ba nga xam ne judd nañu gis mu koy def di ko di ko màggee. mais man damay laaj. pourquoi eh, eh, pourquoi eh. ñoom ñuy payer les pots kase ah. xale bi nga xamante ni xamul. yëgul fekkeewul di payer les pots cassés. waaye mooy li Alaaji wax rek nag. mooy li Alaaji wax rek nag. Ah. seetal seetal Alaaji ah. noo ko wax dégg ba xaw ma noo ko wax. loo wax ba waaw. su doo jëm ci géej. waaw bul kar daay ñibbi. jeex na. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant bu wér a wér a bokk ngeen di ci waajuru référence bokk ngeen ci waajuru référence yi waajur yi nga xamante ni nii ku leen gis dina bëgg gisoo léegi am nga beneen doom waaye nag man maay taaw. <laughs> waaye Madou Madou day fiir de. maay taaw. Madou day fiir. awa kese fiir ah. maa leen mag ci Zahir maa leen mag ci Baati. kon jeex na te wolof nee na. Hmm. Alaaji Ndiaye loo Ndiaye. Eh. gën a jege eh. gën a yey. Eh, kon kon nañoo topp sa gannaaw. maa jël li ma waaye Madou maa jël ma <laughs> maa leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. ok ok kon ñu dem léegi dellu si ba tey ànd ak imam Pape Samb ba tey ci seen ñaareelu xaaju seen émission bii di wareef ci télévision Futur Média nee naa leen lu ñu bëgg rek mooy lépp deferu ci kattanu yàlla kon léegi